maa ngi tudd Bou Biblio nekk artiste chanteur euh, dëkk Mbour ci région de Thiès. Euh, maa ngi commencé musique euh, année 2012 2013 li may xaar ci sunu talent mooy mooy li nga xamante ne moo fi andi ñëw jël ko ci yitte yi am noo ñun def ñu artistes yu mag man mën naa ne loolu rek laay xaar si ñoom quoi. parce que ñoom seen idée moo nekkoon jël talent te talent yooyu noonu suñ borom bool jàppale nañu ñun ñu bokk ci quoi. li ma gën a marqué ci stage bi mooy euh, cours yi ñuy def ak Gaëtan moo ma gën a marqué ci stage bi mën naa ne quoi. parce que da nga ciy gagné lu bare bare bare et ça me aussi ay années deux mille dix sept deux mille dix huit quand j'étais à Douta Seck bon man musique bi li ma ci dugal sama yaay la parce que bi ma nekkee xale vers onze heures mère bu doon togg añ da doon da da doon déglu rajo te dafa bëggoon ay son ngoyaan quoi. man je comprenais pas mais dama foogoon ne maire bi moom mooy woy son yi man loolu mën naa ne moom ma dugal ci musique quoi moo dem ba def ma artiste. Euh, man li may rêvé ma nekk nekk artiste bu ngàntaan ah. loolu lay rêvé te am naa yaakaar ne suñu talent mën na ma def loolu noonu quoi bon état bi musique bi toll au niveau di Sénégal international affaire yi mi ngi avancé bu baax a baax a baax baax a baax parce que ñun mën nañ ne comme sama genre gi avancement boobu noonu. moo nu jàppale moo tax ñu ñëw fekk ko benn benn benn état bii nii gis ko muy pousse ñu ànd ak moom di pousser quoi. bon fii moom mën naa ne boo fi ñëwee day mel ne seen kër nga ñëw ah parce que gars dañ lay accueillir accueillir bu naaj c'est comme comme da nga sa famille nga jógee ñëwaat sa famille quoi. oui accueillir accueillir nañ ñu accueillir bu naay te lépp li nga xamante ne nii euh, dund nañ ko fii jàpp nañ ne du doon lu ñuy fàtte quoi parce que day day day nekk ay moom moments yi nga xamante ni da lay gën a marqué sa dund quoi. maa ngi remercier ñëpp ah. parce que le fait que ma ma nekkoon fi ak samay morom ñu tànn ma si rek bon je dis merci à tout le monde et merci à Dieu.